ñaan borom bi tabaraka wa taala mu wàcce ko xéewal ak mucc mu wàcce ci kawam xéewal ak mucc ak kaw ay soxnaam ak képp koo xamante ne dina topp na yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commencé ci saxaaba yi ba keroog bi si penc ginaaw loolu mbokk yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangu ñu suñu jëf yu baax te jéggal suñuy rëcc rëcc leen ndokkee leen ñëpp ci julli gi weesu ñu ñëwati rek ci jotaay yooyu ñu daan amal ci groupe bi léegi-léegi tey jii ñu fas yéene fàttalante suñuy mbokki jullit saar wi di suratul kaafiruun ginnaaw ba ñu fàttalante ci jotaay ba la weesu saar woowu di suratul kawsar ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ibbil ñu suñuy dënd leeral nañu suñu làmmiñ ba ñu jooxe ko comme ni mu gën a rafetee tamit ñu tamit nopp yoo xamante ne dégg ak cër yoo xamante ne bi ne dana góorgóorlu fas yéene topp yàlla nañu ko borom bi tabaraka wa taala defal بوكي تاي سوني جوتاي تاي بي ميغي اديو تي سورة الكافرون سورة قل يا ايها الكافرون دي سارو ماغا ماغا تي الاسلام بري اي نينين دي سارو خامتاني بي ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم نكو جابي البراءة من الشرك موي سيت ويتي تي بوكاري جامولين دول بروم بي تبارك وتعالى كم نيغي تودي تي كانام ان شاء الله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 عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بقي كن لولموي آه، ساروي سورة الكافرون بقي ساروي دفبري أين كنيل bokuna na ci liy tegtale ak magayam rek yonentiba bi alayhi salaatu wassalaam daana ko jàng ci ay julli naafilaam wala léegi-léegi daana ko jàng ci ay julli faratam bokuna ci julli nga xamante bi yonentiba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ko jàng moy rakaate yi tawaaf mooy wëree kaaba ba pare ñaari rak yoy muy julli ci ginaaw maqam ibrahim da ci da jàng suratul kafirun ak suratul ikhlas bokk na ci ñaari rakkay fajar ñi jiitu farata gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jël jàng saar wi di qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwa allahu ahad ak yeneen julli borom xam-xam yi tu nañ ci rakkataayu tawaaf waaw kon mu nekk saar woo xamante ne mbir mu màgg la bokk na liy tegtal ci ay ngëneelam rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee saar wii day mi ngi weccee ñeenteelu alquran ji maanaam boo jëlee alquranul karim daal di koy xaaj ñeenti xaaj saar wi day day wéccee benn xaaj bi maanaam ci ak ab ak yool boo ko jàngee danga am ab yool bu toll ni ku jàng benn xaaj ci ñeenti xaaj alquranul karim bi loolu nag ak ngëneel lu màgg a màgg la loo xamante ne bii ne saar yu am na ko waaye tamit ak poids bu diis la boo xamante ne bii ne nekk na ci saar bi ndax saar yu comme ni nga ko xamee mu ngi nekk ci Euh, juróom-benni aaya juróom-benni aaya yenn aaya yi ñetti baat lay def yeneen yi ñeenti baat yeneen yi juróomi baat alaakulli xaal saar la wu gàtt woo xamante ne bi nit ki ci benn minute mën na cee jàng saar wi juróom yoon borom bi tabaaraka wa taala def ci mu dal di muy weccee ñeenteelu alquran ji loolu ak ngëne lu màgg màgg la ah, loolu li koy tegtale موي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دائما تليني ينتبه عليه الصلاة والسلام داي مسمى جيتي آه، فجر مدال دي جلي دال دي جنگ قل يا أيها الكافرون ak qul huwa allahu ahad nee na jooju ci tukki lañ nekkoon mu jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwa allahu ahad ba mu jullee ba pare daal di wëlbatiku mu ne saxaaba jàng naa jàng maanaam jiite naa leen ci ñeenteelu alquran ak ñetteelu alquran bi maanaa saar yi nga xam ne jàng naa ko de benn bi mi ngi weccee ñeenteelu alquran benn bi di weccee ñetteelu alquran bi benn bi kaar bi beneen bi ceer bi xoolal si jublu te yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi qul yaa ayyuhal kaafiruun ak huwa allahu ahad kon loolu day leeral gëneel alquran gëneel yi nga xamante ne bi ne saar wi am na ko bokk na ci comme nañ ko tuddee ci njëlbeen gi saar wi day nekk loo xamante ne bi ne day Euh, leeral ak set wicc ak denc li nga xamante ne bii ne mooy bokkaale képp koo xamante ne bii ne jàng ko balaa ngay tëdd kooku day am na albaraa maanaam set ba dañ wicc min shirki ci li nga xamante ne bii ne bokkaale la waaye ci li nga xamante ne bii ne euh, jaamu leneen lu dul borom bi tabaraka wa taala la xadis bi euh, bi koy tegtale mooy xaaris ibnu bajala al xaaris ibnu jabala nekkoon saxaabi yi nee na waxoon naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko yaa rasulallah allim ni shay'an aquluhu inda manaami yow yonente yàlla bi jàngal ma loo xamante ne bii na bu may nelaw dama koy wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko ida axadta madjaaka min alleyli faqra qul yaa ayuha alkafirun fa innaha baraatun min alshirk nekk boo boo dee boo boo dee tëdd day boo demee ba tëdd sab lal bu guddee la nga jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun ndaxte moom day ak cet ba dañ wicc la ci li nga xamante ne bii ne mooy bokkaale kon euh, mi ngi noonu loolu lenn la rek ci ngëneel yi nga xamante ne bii ne saar wi di xul yaa ayyuhal kaafiruun am na ko saar wi nag lan moo tax mu wàcc lan mooy sababu nuzul sabab bi tax mu wàcc saar wi mi ngi wàcc ci ak kuréel ak benn mbooloo ci waa Màkka ñu ngi tudd seen tur ki ci njëkk nekk alxaaris ibnu qays sahmi wala ans ibnu wail wala walid ibnu mughira wala aswad ibnu abdu yaxuus wala aswad ibnu ibnu almutalib ibnu asad wa umayat ibnu xalaf ak benn ak seen gàngoor googu ñu nekk noonu ñoo ñii ñoo tax saar wi wàcc ndax dañoo ñëwoon ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko yaa muhammad halumma fatba diinana wa nattabi diinak wa nushrikuka fi amrina kullihi ne ko yow muhammad ñëwal nga topp ñu topp suñu diine ñu topp sa diine bu ko defee ñu boole la suñu mbir yëpp dégg nga da ngay jàmm suñu yàlla am at jàmm sa yàlla at na ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sana fa in kaana alladi jita bihi xayran kunna qad sharaknaka fihi wa axadna xadana minhu وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه ñu ne ko da ngay jaamu suñu yàlla am at ñun ñu jaamu sa yàlla at mu fekkee yow li nga nekk moo gën kon ñun bokk nañ koog yow maanaam participer nañ ak yow ñu daal di jël suñu cër ci li nga yor bu fekkee ñun nag li ñu nekk moo gën kon yow bokk nga ak ñun participer nga ak ñun jël sa cër tamit ci li ñu yor yonente bi alayhi salatu wasalaam ne leen maada allahi an ushrika bihi xayru maada allahi an ushrika bihi gayra maa ngi lu yàlla ci ko bokkaale keneen ku dul moom ba ñu ñàkkee pexe nag ñu am beneen offre bu ñu koy jox beneen proposition ñu ne ko kon nag lañu bëgg mooy dañoo bëgg rek nga raay suñu yàlla yi bu ko defee ñun danañ la gëm lañ topp su diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko waxee loolu mu ni kon xaar leen ma xool lan la ma sama borom tabaraka wa taala di digal ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa bëggoon loolu xéer wa maka dal di bàyyi la ñu nekk ci bokkaale dal di ñëw dugg ci diine ji nga xamante ne bi ne moo leen di musal àdduna ak alaxira ba ñu sàkkoo ci moom mu ñëw raay seen yàlla yi rek sàkku ñu mooy deuxième proposition bi bu njëkk bi pour ñu jaamu bu ñaareel bi muy déedéet kon ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam bañee jaamu bi ñu proposé ko deuxième fois ni ko kon nag dañoo bëgg nga raay suñu yàlla yi ba ñu ko proposé loolu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam leen kon xaar leen ma xaar lan la ma sama borom di digal borom bi tabaraka wa taala daal di wàccee aaya bi ndax waa Màkka bañ ko waxee loolu bëgguñu woon euh, dañoo bëggoon rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam def loo xamante ne bi ne dana màggal la ñuy jaamu loolu la ñu bëggoon waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen xaaral xaar leen ma xool lan la ma sama borom di digal borom bi tabaraka wa taala daal di wàcce aaya wi saar wi di qul yaa ayyuhal kaafiruun ba saar wi jeex ma ko borom bi wàccee yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal dem ca ñoom ca penc ma fa ñu nekk ñoom ñëpp mu taxaw daal di jàng aaya bi daal di jàng saar wi ba mu ko jàngee nag ca la ñu ñàkk pexe jël ay lor teg ko ci kaw moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam jël ay lorit teg ko ci kaw ay saxaabaam borom bi tabaraka wa taala mi wax wax ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci saar wi ni ko qul waxal yow muhammad ne yaa ayyuhal kaafiruun yéen ñi nga xamante ne ñu weddi ngeen day yéen yéeféer yi mu nekk bépp yéeféer boo xamante ne bii yaa ngi jaamu leneen dul borom bi tabaraka wa taala da ngay dugg ci wax ci wala boog lenn ci wax ci dalay concerné yaa ayyuhal kaafiruun yéen yéeféer yi boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax mu leer naññ alkaafiruun yéen yi nga xam ne ay yéeféer ngeen laa abudu duma jaamu laa abudu duma jaamu maataabuduun li ngeen di jaamu xërëm yi ngeen di jàmm man duma ko jaamu loolu set ba dañ wicc la ci leneen lu ñuy jaamu lu dul borom bi tabaraka wa képp koo xamante ne bii ne ab yéeféer la di jaamu leneen lu dul yàlla wala taxaw ni ko laa aabudu duma jaamu maataabuduun lii ngay jaamu mu wéet ak borom bi tabaraka wa taala moo xam loolu ay garab la ay xeer la wala ay nit la wala ay jinne walla jant la walla weer la wala sax malaaka la wala sax yonent yi nga xamante ne bi ne ñoo gën a màgg ci e, nit ñi la abudu ma taabudoon dama leen jaamu yonent bi wëlbati ñoom ni wala antum te yéen it wala antum te yéen tamit nekkuleen aabiduuna di aji jaamu maa aabudu lii may jaamu mooy wax ak ñoom ne yéen ñi fim mu nii lii ngeen di jaamu ni lii ngeen di jaamu ni bokkut ak man li may jaamu moo tax mu ne wala antum te déet yéen aabiduuna di aji jaamu maa aabudu lii may jaamu wala kii may jaamu ñoom lañuy ñuy jaamu leneen la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wéetal borom bi tabaraka daal di baax mu waat ne wala ana man day nekkuma aabidun di aji jaamu maa abattum li ngeen jaamu woon wala antum aabiduuna maa aabudu te yéen nekku leen di jaamu li may jaamu kon bokk lakum diinukum waliya diin am ngeen seen diine am naa sama diine am ngeen seen diine am ngeen la ngay jaamu la ngeen di jàmm man am naa la may jaamu kon saar waa ngi noonu ci tënk waaye ñu delluwaat rek ci euh, répétition bi nga xamante ne bii am na ak nan na ko boroom xam-xam yi déggee ak ban gis-gis lañ ci am am na ci boroom xam-xam yi ñu ni laa aabudu ma na wala antum na ma aabudu wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduuna ma aabudu boog nekk ci saar wi mel ni répétition nekkul lu ñu répété déedéet mais bu nekk dafa am maanaa boppam bi ci njëkk ba mu waxee laa aabudu maa taabudun man day duma jaamu li ngeen di jaamu loolu ci li paase wala boog ci li nga xamante ne bi ne moom lañu nekk nii jamono ji ñu nekk nii man li may jaamu yéen jaamuwu leen ko jamono ji ñu nekk nii yéen li ngeen di jaamu man jaamuwuma ko au futur tamit ci kanam man duma jaamu li ngeen di jaamu yéen it li may jaamu jaamu wu leen ko kon bokk ku nekk na dem ak diineem am na ci boroom xam-xam yi ñu ko firee noonu am na ci boroom xam-xam yu wax ni déedéet bu njëkk gi lañuy jaamu la mais yu ñaareel yi nañu koy jaamoo bi maanaam moom la abudu duma jaamu ma taabuduunu li ngeen di jaamu yéen wala ki ngeen di jaamu wala bokk ñi ngeen di jaamu nga xamantene ne bi ne moom la defal jaamu gi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne déedéet man loolu duma ko defal keneen ko dul borom bi tabaraka wa taala mooy bu njëkk bi yéen tamit li ngeen di jaamu dafa wuuteeg man ki may jaamu wala bokk ki ngeen di jaamu dafa wuuteeg man ki may jaamu bu ñaareel bi mu ne yéen ni ngeen di jaamoo wala boog man ni may jaamoo bokkut ak yéen ni ngeen di jaamoo yàlla yéen ni ngeen di jaamoo yàlla wuuteeg man ni may jaamoo yàlla kon boog ku nekk na dama ka muy jaamook na muy jaamoo yéen ngeen dem ak ke ngeen di jaamook ni ngeen di jaamoo man ma dem ak ki may jaamoo ak ni ma koy jaamoo loolu it am na ñu ko wax ci eh, boroom xam-xam yi am na ñu ni déedéet ñaari phases ñaareel yi day euh, dëggal di confirmer li nga xamante ne bii mooy yu njëkk yi kon mu nekk ab répétition boo xam ne li ñu ci jublu mooy gën a confirmer kon loolu it euh, boroom xam-xam yi wax nañ ko ci euh, saar wi mi ngi noonu kon mu nekk loo xamante ne bii lu am am solo la nekk loo xamante ne bii tamit ñetti maanaam yëpp mënees na koo déggee ci saar wi waaye tamit mënees na koo. Eh, yenu na ko incha allah eh, point bi ci topp xam naa ci li ñuy taxawee eh, wax ci borom bi tabaraka wa taala wax ni lakum diinukum waliya diin baatu diin lan lay firi foofu borom xam-xam yi am nañ ci ñaari taxawaay bi ci njëkk mooy comme niñ ko leeralee mooy diine am ngeen seenub diine man am naa sama diine loolu benn la ci firi ji mu gën a tasaaroo euh, mu gën a fésit am na ñeneen ci boroom xam-xam ñu ne liñ ci jublu foofu mooy aljaza ak fay ndax baatu diine tamit dina ñëw ci làkk arab ñu ci namm ak pay moom la borom bi tabaraka wa taala di wax ci suratul fatiha maliki yawmi diin ki nga xam ne mooy buur dëggantaan ci bisu fay ga mooy bisu yowmal qiyaama moom nekk ci saar yu bare bare ci alquranul karim suratul infitar suratul mutaffifin wa ma adraka ma yawmu ddin thumma ma adraka ma yawmu ddin ak suratul infitar alladina ak suratul mutaffifin alladina yukadibuna bi yawmi ddin ñi nga xamante ne bi dañuy weddi bisu pay ga kon ad diin dina ñëw di firi ak pay waaw loolu it am nañu ko wax ci borom xam-xam ñu ne kon lakum diinukum yéen de am ngeen seen pay bu yowmal xiyaama ci la ngeen doon jaamoo ko ni ngeen koy jaamoo waliya diin man am naa sama pay ci ki ma doon jaamu ak ni ma ko doon jaamu loolu ñaari euh, wax la ci borom xam yi bu fekkee bu njëkk bi lañ ci jublu mu nga xamante ne bii mooy diine li ñuy euh, jaamu borom bi tabaraka wa taala ak sharia ndax loolu dañ ciy déggee ni ñi nekk ci ak neen dañ leen a war a bàyyi ci la ñuy nekk daal leen ci. dëgg la ndax borom bi moo ne am ngeen seen ak diine man am naa sama diine ndax noonu la war a demee déedéet warul demee noonu loolu la koy wone rek mbir yu bëree bëri la ba ci njëkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi yàlla wàcce ci moom alquran wàcce ci moom saar wii bàyyiwul waa màkk la ñu nekkee dëggalu leen ci diine ga ñu nekk waaye la mu def mooy daleen wone daleen won ba mu leer naññin lañu nekk nii ay caaxaan la leeraleen leen kan lañ waru war a jaamu ak nañu nan lañu koy jaamoo weddi la ñu nekk ak lañu doon def yépp kon loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dégg-dégg boobu noonu moo ko njëkk a weddi ñaareel ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam da dafa attaqué waa Màkka xeex leen ci nekk ga nekk ay bokkaale bu ca mujj mooy fatxu Màkka ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw di tijji Màkka dafa ñëw agsi songu leen ci euh, arme bu mag a mag a mag a mag ñërët ci mooy ñi nga xamante ne bii na gaawtu nañ daal di gëm yàlla xamante ne ñàkk lañ pexe ña ca des soit ñu génn ca biti wala ñu daal di leen di euh, faat comme ñu bare bëri ñi nga xamante ne bii faat nañ leen ci xasuwatu euh, fatxi Makka kon bu fekkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dëggal dëgg dafa dëggal dégg-déggin woowu kon du ñëw di attaqué ci waa Màkka du attaqué képp koo xamante ne bii ne mushrik nga euh, di xeex ak yow pour nga dugg ci diina ji kon loolu euh, da koy weddi waaye borom bi nga xamante ne bii mooy tabaraka wa taala bi nga xam ne moo wàccee alquran wàccee saar wi moo njëkk leeral li nga xamante ne bii ne neen gi nekk ci jaamu geneen ku dul borom bi tabaraka wa taala ak lañu koy jaamoo kon loolu day wane ni euh, dégg-dégg boobu baaxut borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ci suratu yunus wax yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko wa in kadabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun bu fekkee dañ laa wedd nee leen yéen day li ngeen jëf yéen la concerné man la ma jëf man la concerné li ngeen di def man dama cee set ba dañ wicc yéen it li may def ngeen set ci ba dañ wicc ku nekk dem ak sa say jëf mu jëmee ci borom bi tabaraka wa taala borom bi kon noonu lees koy déggee waaye dee su ko déggee ni euh, ñi nga xamante ne bi dañoo nekk ci ak neen dañuy nekk ci lañu nekk ñu bàyyi leen ci dëggal leen ci déedéet dañ leen war a leeral ba mu leer nañu neen gañu nekk leeral leen dëgg yi nga xamante ne bi ne moom lañu ñu war a topp bu ñu bañee nag boobaa mbir yi doo ko dem ci loxoy borom bi tabaraka wa taala laa ikraha diin doo ko ñëw kon euh, mbokk yi Euh, loolu ay point la woon yoo xamante ne bi ñu koy fàttali suñu bopp di ko fàttali mbokk yëpp ci euh, saar wi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu albaraatu min ashirk fi jamii xayaatina xatta nalqaahu wa nahnu bariuuna min ashirk wa ahli ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu defal ñu ak set ak dañ wicc ci bokkaale gi nga xamante ne bii ne mooy tee nangu jëf waaw ñu dund ci loolu faatu ci loolu ba ñu dajeeg moom fekk ñoo ngi set wicc ci ay bokkaale mu jéggal ñu suñu bàkkaar daal ñu dugal àjjana loolu yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala def di ñaan bi tabaraka wa taala mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc eh, di ko ñaan mu ñu dégg ak a wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain